لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وال مبوك جولي نيجي تاي في تي عرفة عرفة نك آه، لنجك موم بونكو بو ماغ تي بونكو ادجي آه، ا آه، بال داني واخ سا موي بونكو بي جي گن ام سو ca aj mu ne alxajju arafa ci xadis boo xam ne tafaqun alayhi la ni aj moom mooy arafa mu nekk ponk boo xamante ni moo tax borom xam-xam yëpp dëppoo nañu ni ku ko taxawul sa aj baaxul bu boobaa da dem aji juwaat arafa nag bërëb la boo xamante ni borom xam-xam yi wax nañ ci li tax ñu tuddee ku arafa ci ay place ma si njëkk nee nañ place la boo xam ne nit ñi day tax ñu xamante am nañu wax ni jibril bi muy wàcc di jàngal Ibrahima alayhi salaatu bi kawan ni ñuy ajee bi ma àggee ba place bi def na ko ndax xam nga arafta mu ne naam araftu am ñu ne suñ maam aadama comme bi muy jóge aljanna dafa tàqali ko xawaa fii la dajawaat ak moom ci arafa mu ne ko ndax xam nga ma mun a xam mu ne arafa moom mu xam ko suñ maam aadama xam ko moom mooy arafa arafa nag Euh, place bu am solo la bokk na ci bis yi nga xamante ni mooy fukki bisu aj yi fukki bisu aj yi nga xamante ni borom bi daf seewaat wal fajri wa layaalin ashr borom bi waat ci fukki fan yooyu fukki fan yooyu bisu arafa mooy juróom-ñeenteel fan bi nekk bis boo xamante ni nag bis bu bëri ngëneel la bisu jéggale la bis bisu goreel ci safara comme suñu yaay Aïcha ni mu ko ci hadis boo xamante ni euh, muslim indi na ko ci ci li nga xamante ni moom mooy saxiixam ne am suñu Aysa mu ne amul benn bis boo xamante ni yàlla dina ci goreel ci safara lu toll niki ki li nga xamante ni moom lay goreel ci bis bi mu nekk bis boo xamante ni euh, euh, Ibn Abdul Bar mi ngi nettali ne Anas ci jëlee ci Anas mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bis bu mel nii dañu demee ba jant bi di waaja di waaj so dafa woo Bilaal ne ko waxal nit ñi nañu déglu Bilaal daal di dégluwoo dégluloo nit ñi ne leen déglu leen rasulallah déglu leen yonente bi salaa salaam bi ñu dégloo yonente bi salaa salaam yonente bi ne Jibril de moomu dikkee léegi di may yóbbante sama nuyoog borom waaye mi ngi leen di xamal yéen waa Arafa yéen ñi nekk fi yow yàlla jéggal na leen Omar mu ne ko waaw loolu ndax ñun kese la wala ñan la mu ne ko loolu yéen la ak képp koo xam ni dana ñëw si bërëb bi ba yowmal qiyaam